njëkk a def colloque en 2011 mu nekkoon màggalu 2012 décembre 2011 lañ ko defoon mu amoon réussite bu yéeme réew yu bari daje woon fi ñu dellu ko defaat 2014 dellu ko defaat 2017 2021 ji di sant yàlla ci bi mu nu mayee nu fekke ko ñu ne kat dañu koy defaat ndax xat-xati jamono ji wërta tax ñu koy bàyyi kon kay ñun li ñu def moo di soppi aw doxin soppi ni ñu ko daan defee fexe ba li nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi am te du ñu loru du ñu lor kenn ñu ne kon dañ koy jaar la ci xarala yu bees yi mel ne jigéen muy ci internet yi muy télévision yi muy rajo yi muy lépp loo xam ne rek dafay tasaare njàngale comme ñun ci lii loolu mooy ci soxal ñu ne foofu lañ koy jaarale waaye caractère international ba nga xam ne amoon na ko duñ ko dindi moo tax am na lu ma fukki réew ak ñaar ci continent yëpp nag am na ci Afrique noire réew mu ma ne Nigéria yéen ñëpp xam ngeen ko ngeen ci bokk boo demee ci réew arab yi da nga ci fekk Maroc da ci fekk Tunisie da nga ci fekk Égypte

ñu daje ngir def ay jàngat ci tolluwaayu jamono ji moo tax jël thème boo xam ne dafa dëppoo ak jamono sëriñ Sam mu def jël si léegi ci riyaat moom mooy moom mooy président bi moo di li nga xam ne mooy xidma ak jëf yu rafet naka lañ ci mën a sukkandikoo ba liñ ba jànkoonte ak conséquences yi liñ di Covid 19 la et les œuvres de bienfaisance comme mécanisme spirituel pour faire face aux conséquences de la Covid loolu mooy thème muy thème bu am solo dëppoo ak fi jamono toll ndax loolu aussi mooy recherche l'islam l'islam nekkul loo xam ne jamono daf koy dépassé. dama daan faral di wax loo xam ne dikk na lu ne ci la ñuy xamee ne lii xañ na lislaam prévoir na ko ba lislaam yoon na ko moo tax sax léeg-léeg ñu gis loo xamante ne bii yow doo ko comprendre doo ko xam parce que agguñ fa ndax tey jii bari na loo xam ne nit ci science ca ba alxuraan di wàcc ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu ñooñu ko woon parce que boobu science dafa àggugut l'islam mooy am teew waaye science mooy ñëw firndeel li nga xamante ne bi islam indi ak li nga xam ne mi ci alxuraan chaque année bu ñuy def colloque bi wala saa bu édition ñëwee dañuy tànn thème bu am solo wane ci li ci yeneen boroom xam-xam indi waaye wane ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa ren nag li ko sëriñ bi waxe ku ne xam na ne fi mu ne nii cercle de réflexion yépp ñu ngi xalaat ci conséquence su pandémie bi mooy jàngoro ji fi tasaaroo ci àdduna bi jeexit yi nar a am ñépp ñu ngi def ay recherche di gëstu di waxtaan di xool naka la ñuy mën a def ba jàmmaarloog jeexit bi léegi waxatuñ sax jàmmaarloog mbas mi waaye jeexit yi ñu fi nar a bàyyi loolu nag ñu gis ne am na valeur yu am solo yu nekk ci lislaam Sëriñ Tuubaa am lu jàngale ci wàllu xitma ñu gis ci biir Sénégal loolu niñ ko jariñoo ak njariñ li mu am nga xam ne ñeneen ñi mën nañ koo tuddee engagement communautaire wala nuñ ko mën a tuddee waaye ci yoonu moo di xitma bi Sëriñ Tuubaa jàngale gis nañ niñ ko jëfandikoo ngir wayafal coonay nit ñi ci biir mbas mi loolu nag exemple yu bari am na ci Sénégal yoo xam ne adduna bi war nañ koo xam kon buñ ñu tànnee thème bi nga xam ne wax na ko muy la xidma et les œuvres de bienfaisance comme mécanisme spirituel pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus loolu mooy war nañoo xool kon valeur yi lislaam indi rawatina li ci Sëriñ Tuubaa jàngale nuñ ñu mën a def ba jëfandikoo ko ba delluwaat ci ba jeexit yi nar a am ci àdduna bi inégalité bi mu nar a jur jafe-jafe yi mu nar a jur ñu man koo woyofal man koo wàññi kon loolu mooy mbirum xolom ren nag ni mu ko waxee xam ngeen ni dañoo toll ci contexte boo xam ne contexte bu bàyyi xel la sëriñ bi bi mbas mi tàmbulee gis nañ taxawaay bi mu ci am jiitu ñëpp ci joxe ay exemple ci nuñ koy xeexe waaye nu ñuy fexe ba fagaru ba moytu ko kon ca logique boobu ci la joxee ndigal ci màggal gi ñu màggal ko waaye ñu sàmmonte ceeg lépp luy tax jàngoro ju law loolu nag moo tax comité d'organisation bi jël en compte loolu ba colloque bi mu doon def par ñetti at mu waroon am ren ñu ci daan woo ay nit ñu jóge ci réew yu bari ñu ne kon dañ koy def format visioconférence ñañ waroon woo ñu ñëw léegi seeni réew lañuy ñuy toog intervenir fii ci Sénégal ñi ci war a bokk ñoom it intervenir kon loolu mooy format ren bi loolu nag kon buñ ko waxee muy am mu am ñeenti aspect aspect scientifique aspect communicationnel aspect organisationnel ak aspect technique wàllu scientifique bi moom yàlla def na boucler nañ programme bi bala ngeen a dem xam naa note conceptuelle bi ak programme bi dinañ ko programme session lay doon matinée bi ak midi mais ajjuma ji après midi bi lay ci la euh, cérémonie de clôture bi ji suba du am dara ndax xam nañ ne dafa kon ñaari fan am nañ ci communication ak juróom bu ñu xoolee fukk yi ak benn juróom-ñeent yi juróom ñëpp ay sénégalais lañ mais fukk yi ak benn mooy ay boroomi xam-xam yu jóge ci réew yu wuute réew yooyu mat na fukki réew ak ñaar yoo xam ne dinañ ci participer tàmbalee ko ci senegal Nigéria Somalie Irak suri Liban France Belgique Maroc Mauritanie Angleterre yooyu ñëpp ku ci nekk am na ñoo xam ne fa lañ nekk jokkoo nañu ak ñoom préparé nañ ba war a bokk ci euh, colloque bi